salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absar safar salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absar safar salaat في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهٍ ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وحديثه ومن والاه mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo bi teew ñëpp ak ñi nga xam ne ay ñu topp jotaay bi waaye rawatina suñu kilifa tey ñi nga xam ne seqal jotaay bi di leen ziara di leen barkeel tam ci weeru tedd ñu nekk ak ci rawatina ci gan bu mag bi nga xam ne moom la ñuy seen mbégte lool nag ci jotaay bi ñu ko indi sànq ngir solo si nga xam ne lii ñu waxtaan am na ko rawatina suñu kilifa yi ànd ak wooteel ba wax ne dafa bëgg njàng mi nga xam ne ca suuf ba ca ñëw waxtaan kon muy bëriwul xel ci biir loolu ci la daal dafa dikk mooy xel wala xamle jàng ba bi moo koy ma jaay sa topp ci ak école yi nga xam ne bëriwul benn fan ba ca jaayam ñu am nag xaar ci ñu ci jagleel ñi nga xam ne ñoo jàng alxuraan ba noppi ndax bi projet bi ñu jógee bi doon yaakaar xam nga dañ ko ubbi ay bunt bunt benn bi mooy ñi nga xam ne bëgg nañoo continuer seen njàng ci wàllu dëgëral seen njàng diine yaakaar naa ne lu ñu doon misaal ñu naan mooy temps yi asli wala temps yi waxtu mais ñu bëgg approfondir ci enseignement islamique ñooñu ñoo ñaas ñu ubbi ñu jël daara ji nga xam ne dañu dem ba àgg fa ñu yem ba ni ñu mën a duggee jaay la cotiser si seen daal yi yokk waaye nag bu ñu doon ubbil tam bunt yi ñeneen ñi nga xam ne xëy na dugg nañu wéy seen njàng waaye jaar ko ci jaar ko école maanaam école formel bii mais foofu ñu seet lool jafe-jafe bi fi am xale bi mu saan mokkal alxuraan ba génn at yi day sori lool ci mu war a dugg ci école boobu du mën a dimbalaat ñëw def cycle périnéal normal bi war a def kon loolu laata spécial mën nañu ko dugg si mooy lii nan lañu mën a fexe ba ñu wéyal seen jàng ci système école yi ca du leen gàllankoor ci âge bi ñu am ak ni ñu tëralee woon benn école loolu nekk na benn jafe-jafe boo xam ne yàlla nañu ko dund lool ndax fii ne jigéen bi ñu seetloo li ëpp ci daara yi ne mooy ay école ñëpp gën a bari ci daara la faral di bàyyi ko li ci ëpp ci daara la faral di bàyyi waaye bu ñu ñëwee ñoom ñu ñëw ab rôle maanaam ñu ngi fii sóoraale wu ñu woon ndax am yi am ñëwee ak ñeneen coogaloon danañ gis saraa loolu def ak xel doon ñu ñu ak jigi ndax lay yàlla xawul ko kon loolu dafa jafe dafa yàlla dana ko wutu lool ba ñu laaj xale yi mu sax seen jàngale ak jafe-jafe ñetti leen xeex te dama jaay sama seen ak ci école waat fekkee école normal ñu jëlee ñu ci bari a gis ñu jàng ndax at yi ko war a defaat ngir arrivé dañu bëri na yaa ngi jëlee xalaat a def ba liggéey ci mbir am na ay tàngoor yoo xam daal ci jéem doo ci jéem a taxawal suuf di solution wax dëgg liggéey bi nekk ak cat mën nañu extrêmement yi ci joxe dem na lu ñaar fukki at ci ginnaaw nga xam ne jëlee nañoo ubbi buntu boobu seet ministère yooyu yi ci biir loolu kon ñu xalaat ne ba xale yi am njàng mu école moo xam am ca dëkk ba yàlla ci ñu ne ko nañ seet bu programme boo xam ne dafay dëppoo ak moom ci naka mooy at yi bari na ndax bi mu jàngee ba xam ne daa ma xam yi fa ñaar ak fa jot kooku primère bi nañ koy tënkal ci anam moom ba def six cent bu baax ñu def affaire pour jariñoo expérience jiitu ci ñi ko doon def xam nañu ëpp naa mën a nekk ndax na xale yi moo am mbokk na ñu ñu bàyyi ko ci ñetti at yoo xam ne dañuy damtu dañuy yàgg euh, ci seen emploi ñu def juróomi daal ñetti doomu maanaam sa ñu def ñetti loolu lépp ñu mën a tey ñu gis ni xale yi ñu ëndaale ci at bari ñu bari rawatina alxuraan karim yi ñu nekk ci moom maasalaatu ak télé yi ci nekk yëpp xale yi nga capacité de tey bi mën a recevoir bari na lool ndax moo ko alxuraan moom li nga laa faral ci coono yi la naan wax yàlla ku nekk sa bopp wax dama am lu jaaxal loolu loolu wax na waaye xale yi xale yi ubbeeku loo xam ne wuute na xale yi ñëw ci sa bopp kon la ma mën a jaar ci ñaar mën naa bëgg xale bi wala jaasi si gën a ci foofu la sukkandiku ak yeneen explication nag may ni ba xale mën naa yóbbu loolu foofu bi ñu doon ci maanaam dafa ñaaw daal bi ñu def ci xale yi dafa ko ci ñetti at nga ne ñu yesee dañu ko dëgg dañu war a am ci fukki at ñeent ñu def ko juróom ñetti at ñu def ko ci juróom ñetti at dafa wax xale dana bëgg ñeenti at ñeenti at boo ko def dañu leen mooy la ko daal pour ko baax nga ne dañu daan yéex bu fekkee teel naa dugg école ñu laa def six ans doog dugal dafa am buy te ñeent ak juróom su boobaa bu ñu ko xabaar fukki at beneen fukki at ñaar du ko gaaw a ci ñëwee ci seen bi gannaaw naa leen si ñu am ba day dëppoo xale ba commencé juróom ñaar ak dugg ca école spécificité bi foofu la foofu la fekkee nag uniquement ñu ko tax a jóg mooy ñu jël ci àll ba beneen moo ko ne wala mii nañ maanaam ci am loo xam ne mooy leen ñu dem ak toog foo biir tamit ba defaral programme ministre bi ñu licence si sarana dañ koy fekk ñaari école yi ñaari système yu jàng wala ñaari wala mooy arabo islamique wala franco arabe ñu ne kon programme yi kan lan la ñu war a tànnal daara ci ñu ne nañu jëlee école mooy franco arabe lu tax ndax gis nañ ni comme ki ko wutal muy doog a daara wala génn na ci école Quran <coughs> yi am na beneen opportunité ko jox mooy nga dem Dakar ngir mën naa dara ñu léegi ñëw maanaam dara mu tëdd arab sabi kon beneen bu ci mooy fan la war a dara yow dara ko aaj ñu doon dañu ubbil bunt yi foofu ñu ngi suñu ngi rek bagage suuf dara mooy lépp lu jëm ci doomu aadama yi ak lu jëm ci jàng diine ci arab la ko def lépp lu jëm ci làkk étranger des mooy tubaab bi ak matière scientifique yi lépp lu yàlla ba am fas loolu mooy dafa ko jëlal dafa ko benn changement dugal jàngale sëñ bi ci jëlal tasawuf bi feeñ ca foofu daal li ci yokkuwaat mooy dugal na ca jàngale wolof maanaam téere yi tëral ci yoon bi borom xam ne ma def ko ci lépp la foofu am na lu ci dugal ba ma fees fees nga xam ne bii mën a bàyyi ci loolu moo di sopp daanaka moo tax boobu dañuy jënd ba sopp boobu beneen mos ci salaam naan effet à grise mooy renforcement yi ñu dugal ci biir ba mën a joxe lool foofu itam li ñu gën a seetluwaat mooy dañoo ni li ëpp ci wàllu yi ci aada yi ci nekk seetal nañ ko ñoom ñuy raw ci wàllum jàng dañuy jafe maanaam xëy na seetal ak benn feeñ nekk waaye dañu ko wax xelal maa ngi teewlu benn la wax siiw na ni président bi jël ko réew mi waxoon na ko nee na na ni doomu gaal yi ñoo gën a mën a digg mën a ci seet bi loolu moom waa tax dëggal la nga naan li jotoon nañu boobu gis nañ nga xam ne dañuy ñu ci bari mooy orienté ci ñu ko tuddee mën a am bu ñu bëggee def test bu yokk ñoom maanaam vaccinat bi bu ñu bëggee def ñaari tax mu yokk jàpp ci ñoom ba ñu jógee daal te loolu xëy na ci ni ma ko waxee am na ci ay daal yu koy def ci biir dëkk réew bi waaye ba ci gis ne wala ci réew yi attaques yi wala cosaan yi lu mel ne dafay am suñu la dama wala ñu ko dund gis nañu ne bu ñuy am mbag dañuy am jàpp daal mën a dugg ci suñu fu taaw loolu kon benn la ci nga ne ki ñu bëgg indi daal mooy doon daal moom problème bi amoon foofu bu dee ko ni ñaar na loolu loolu ko yosu loolu moo di ci ci ko ko école spéciale spéciale parce que ku jël ci dara do spéciale ndax dañoo tënk ak jamono war def mooy euh cycle lu mu tëdd de on ko wax ñetta liggéey normal wala changement nga ne loolu système bi bu yëpp am rek day mën a dugg ci jaaraaw ba charte taamu toujours tuuti rek mu bëgg a dugg suba nga def jafe-jafe loolu nag bu ñu demee expérience nga amoon ba am xale yoo xam ne ci lañ jàng ba dëgg ñu wax ñi am nañu licence ba ñi ñu am sax maanaam master buñ ci sukkandikoo dañuy si kon lu lu jàpp ne lu mën a nekk la rawatina nag ñu koy defaat dañ cee seetlu sa boo ñi nga xam ne njëkkoon ci wàllu mais nag sëñ bi moo doon parcelle suñu wàllu boobu dafa gën a gën a jigéen yu bëri wàcc ci tam yoon leer bu yaatu war a ne bañ ci liggéey yi taxawal commission bi conseil bi ko leeral ko yaa taxawal bokk na ci commission bi ak bokk jabar loolu liggéey ak ñeneen ñoo xam ne ci biir dëkk bi ko pratiquement la ñuy tudd am nañ ci même expérience lu ëpp fukki at joxe ci ay résultat bañ liggéey ci liggéey boobu macha allah mucc ci nga xam ne man lu mucc boobu moom système bu ñëwee dafay am nga ne xale dañuy génn su boobaa man li ci taamu mooy mu nekk ca bloc opératoire di a sol di makaar dem jiite ci jumaa ji ku mel ne loolu la daal di bëgg a génne ndax nag li ñuy wax sax ci yàlla ak jàngale koo xam ne day mën a tontu laaj yi nga xam ne société loolu mooy jubluwaay bi gën a mag ci tënk xam naa fekk damay ñu war lii mooy école spéciale lii moo ko tax ci biir système bi la bokk dugg ci wàllu sëñ bi nga xam ne bëgg yëkkati njàng mi mu xam ne suuf ba ci jobatal mu ëpp solution mooy continuité am na jaar ak kon problème bi amoon jaar ba ne moom lay fu jëm loolu jëm fi mu jëm léegi leer na te mën jaar bu mu dëgg sa yoo xam ne waa ak wala problème yi tëdd na ni ci yokkaat macha allah mat na la parce que xaaral du am beneen a ci tënk naa mën naa tënk ko mooy toog bi mu doon ngi ñëw ñu ngi tuddee école spéciale li ci gën a ràññee ko daal te man bu mooy ni jumtuwaay bi li nga xam ne tuddee ko spéciale. mooy ne mokkal alxuraan moo ko tax a jóg muy benn ñaareel ba mooy ni yi ñu daa ci jàngum alxuraan bi ba boo génnee say at day ba duutu la may nga mën a def yeneen jàng bi loolu lañ bëgg a lijjanti ba tax bu fekkee ne liñ daa jàng ci juróom-benni at xale bi bu noppee ci alxuraan yi ci ñetti at la koy kon dañ koy wàññil aw yoonam ci ay at njàngum alxuraan bi tamit ci nañ ko tëralee jàpp nañ ni ci ñetti at xale bi dana ci mën na kon bu ngeen déggee spécial daanaka loolu moo ko tax yeneen yi ñu jàng yépp ñoo ko bokk lay jëlee ndax danañ bàyyi xel ak taalibe danañ ci bàyyi xel tamit ngir suufiyanke danañ ci bàyyi xel tamit yi mag ñi bind ci biir réew mi ci wàllum diine bu ngeen seetloo tamit ñoom ñaar ñëpp liñ wax kon dañuy fas yéene nit ñi ci mel ni ngir moo xam ne ñun ñëpp ci lañuy maas di dox ci yooyu bokk ni ci jox ñuy joxe woon lu ñuy liggéey ndax duñ bàyyi kenn ku ne di dox ni ko neexee di jàngale nu ko neex jàngale ngir bu ko neex nga mën a gis ci benn njaboot ñuy jullee ci anam yu wuute ñaari mag ak rak doom ak baajur di wuute ci ay julli ci fekk xale ba nañ ko jàngale ca école bi moo wuuteeg li ñuy jëfe ci kër yu mel noonu dafay indi ay jaf jafe dund ci biiru askan yooyu nag insha allah tëraleen ji bu sottee dafay jeex kon dafa mel ne suñu ñaari gan ñi jéem nañoo tëggu ci waxtu bi damaa xamul liñ leen wax liñ leen wax gën ngaa bari moo tax ñu def ko noonu waaye dañuy ubbi kàddu gi rek jox ko kilifa yi fi ku soxla kàddu gi ñu jox la ñu jéem a sàmmante ku ci jox rek mu fexe ba nu mu gën a tënkoo ca leer moo gën ndax ñu mën a yëkkati jotaay bi ci waxtu bi ñu ko tëralee kon ci lu tolloo fanweeri minute mën nañu ubbi waxtaan bi kenn ku ne jël ñii dolli ak leeral ñu ñii dolli dolli ñii leeralu leeralu su ko defee ñu delloo war leen gi seen kàddu yu mi nag ay détails yu bari yu ci des naka la ñuy natte nit ak jàngale yooyu yëpp bari na ay détails mais dafa dafa xaw a technique buñ ci duggee dañuy réer waaye li ci am solo mooy jox leen rek yi munta ñàkk mu leer seen bopp yi ci des nag daanaka ñi tey liggéey daanaka ñoom lay gën a kon dara bu ubbee mën a ne am na ñu ko soxla te ñu jéem a sàmmante euh, waxtu bi bisimilah Aliou Guèye sëriñ Aliou Guèye waa Akan Cheikh Mbacke na Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Mbacke ah Cheikh Boubou Mbacke Serigne Aliou Guèye Cheikh Boubou Mbacke waaw Abdou Khadir Diop Mouhamad moom waroon na waroon nañ ko force moom jël gàddu waaye ñun joxe ko loolu ci joxe ko gàddu yooyu xëy na ñun ñuy jëlee du ñàkk ñeneen ak bëgg yi sëriñ ñaa jël bëgg yi ci programme jàngal bi nga xam ne yaa ngeen ci liggéey ba nga xam ne ci jamono Sëriñ Saliou Mbacké dafa tàmbali woon kon ñu maa ne jamono Sëriñ Saliou Mbacké tàmbali woon yàlla ba muy laaj rek mooy ndax liggéey boobu dafa lëkkaloo jamono si sàllu am na xam ne dafa taxaw seen coobare bopp wala seen yitte bopp wala dafa lëkkaloo jëm si sàllu ndax mu doon na ci dara ak itam ñu ko doon tëral ak di liggéey ban jublu ñu am dëgg-dëgg waaye ñu ko teg ngir bëgg a jëriñ jëriñ wala suñu waa ji def rek am suñu war a yóbbu ñu ngi war a doxee te yow boobu dara mel. jërëjëf sëriñ Aliou ñu jox kàddu yi sëriñ Cheikh Abou Mbane Mbane. Thank you. maa ngi di sëñ Touba ci dëkk bi wax na ci xam-xam mu àgg ba di ànd ak ñoom di rafetlu waxtaan yi am na solo lool te tamit xam-xam nekk ko dara boo xam ne nii wax dëgg yàlla rafet na lool ñaan yëpp rek àgg fekk ñu ci bàyyi ko Mbàkke ak tamit ndax dañ koy yóbbu ko ci leneen école wala déet ak majalis yi fi nekk lan moo war a nekk seen taxawaay damaa xam ndax dañu tudd yëpp wala dañ leen bàyyi ngeen di tontu ay benn benn bu fekkee ne ngeen a jàppandoo yëpp ñu def benn seen forage jarana mu am système boo ne xëy xilaat ak xilaat ak ñoom xilaat yi di def di def di def ay jàngu mu dëppoo ko système bu keneen di def jàngu dëkk bi itam mu dëppoo ko système boobu rek bay xalaatee def ci sëñ Saliou wax ko ne ko daal jàpp ne njàng mu dëkk bi daal jaar na euh, gën a saytuwaat buñ ci amoon ndigal danoo bëggoon daal seet tëral yi tëral njàng boo xam ne dana tax nit ki mën a xam diineem xam taalineem xam itam lu tax mu a mu mën a jekku àddinaam mën nañu ko waxee bañ ko waxee loola mu rafetloo ne loolu day kenn waru leen cee jiitu kenn waru leen cee jiite ma ko ngeen ko def ngeen ko def daal koy rafet lool euh, joxe ci digal kon noonu deme woon mooy xalaat bi kon ci ñeent ci njaboot njaboot gi yëngu ci wàllu jàng ci ñoom waaye ko xalaatee dañoo doon wax ko sëñ bi ko ko noonu mu joxe ci ndigal rafetlu ko ba ñu liggéey ko ba mu noppi liggéey programme boo xam ne euh, boobu bu dee njàng mu alxuraan bi wutal ko programme njàng mu manière bi wutal ko programme njàng mu école bi wutal ko programme ba bu wutaale sax Euh, kuréel yi war a saytu njàng mi ci boppam loolu yëpp ñu def ko ci document ba jiital ko suñu saako moo ne kon da ngeen may may ma xool waaye yàlla dogal ba foog naa bi bëgg jiitalee tegaat bi ma da bàyyi ko fi ginnaaw bi sëñ El Hadj Sëñ El Hadj nekk xalifa dem nañu wax ko moom itam mu rafetlu ginnaaw suñu soxla tey mu ñëwee dem nañ war mu rafetlu ko kon noonu la demee woon waaye xëy na ni mi ngi tëddee woon lu ci bàyyi xarit général la mooy boo ko yóotee lu lu baax dana ko rafetlu ne fi moom yoo xam ne lu mu rafetlu ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy jéem ñoo koy jëmmal wala ñoo koy ko rafet looy daanaka sottal gi moom day daal des biñ demee ba deux mille quinze nag sëñ Muntaxa euh, jotaay bi mu daan am ñi yëngu ci xam-xam deux mille quinze bi ñuy waajal jotaay bi dañoo defaale atelier yi boo xam ne dañu jëlaat liggéey boobu ñu liggéeyoon deux mille sept xoolaat ko tënkaat ci document jox ko sëñ Muntaxa deux mille quinze 2016 itam ñëwaat ñu defaat noonu lu ci ne am na ay kii jeexaat gën koo xoolaat gën koo gën a rafetlaat bu yàlla rafetlaataat loolu lépp day wane kon moo tax suñu taxaw moom loolu lu lu lu bokkoon la lu lu lu yëgoon la lu doon àgg ci moom la lu mu euh, la lu jiitu muy président ba ci joxe ndigal boppam la ñu joxe ndigal bopp mi tam liggéey boobee moom lañ jàlluwaat sukkandiku te gën koo nag moom it gën koo dëppalewaat ak jamono gën cee boolewaat ñeneen ñoo xam ne dañ koy njëkk a liggéey bokkuñ koon ñoom ñu gën cee ni kon xalaat bi ci njaboot gi la jógee waaye jàll ci lu euh, yoonu murit ban hmm. taxawaay wàccuwaay la am ci tasawuf waaw ñaar laaj yooyu ma laaj jàppale mooy yi ma mën a tontu yi ma war a yi ma yi ma jàpp ne mën naa cee tontu mais ak gii kon lu may dañoo wax dañuy jàngale tasawuf dañuy jàngale ak murit murit daa bokk ci tasawuf da cee bokk parce que ñu ngi mel ne bu ñu doon murit ba taxawaay la ci lislaam rek murit daa bokk ci lislaam daa bokk ci biir lislaam Euh, nit ñi nga xam ne daal mooy mënut a ñàkk xam lislaam ndax bu ko xamul mën a nekk jullit te man maa nekk mooy gi gi ko demee ne ko noonu tasawuf itam noonu la amee ak moyit lislaam a yaatu am lu tasawuf tasawuf am bu moyit kon mooy bi itam dana baax mu xam tasawuf ndax li nekk tasawuf la juddoo nit ki nag li nekk bu xamul fam juddoo mën na ko bañ a xam bu baax moom li nekk te it kii ko de mën naa yomb wax ko de ko jaaxal mën naa yomb wala sax jéem ko jaa génne bu génn itam day dëgg bopp rek waaye du am lay day du am lay ak dëgg bopp am na dëgg bopp kañ génn waaye mën a teg ci loxol ki koy wax dara moo tax jaar na kon ki nga xam ne am wér la nekk ci biir tasawuf ah mu xam mu am lu xam ci tasawuf ba xam lii mu nekk fan la tey soob boobu itam te leeral moo tax fànn tege ci lislaam xam ne tasawuf te xam ne kon tasawuf moom ci biir lislaam la bokk bu xamee mooy xam ne mooy ci biir tasawuf la bokk bu xamee tasawuf xamul mooy xam ne mooy ci biir tasawuf la bokk kon mooy teg tasawuf ñu ñaar bañ naan mooy da taxalaa ci tasawuf waaw mooy ci daa bokk ci biir tasawuf tasawuf daa ëmb mooy kon mooy bi daa baax mu xam tasawuf bi nga xam ne moo ëmb mooy ki mu ki mu bokk رفعنا وراء فلا jërëjëf sëriñ Cheikh na kon yaakaar naa ne tontu boobu leer na ñu ne lislaam ba dafa am ay diir yu nekk ci ngir Maalikiya Hanafiya Shaafi'i yu mel noonu tasawuf fi dafa gën a yaatu dafa yaatu am na ñeneen ñu tudde tasawuf ñeneen boobu ak keneen ak murid yi tudde xëy na loolu tax rek ñu wax loolu waaye da ko am ni mu ko waxee am na jëlaat yoo xam ne jóg ko wutal gi ñu wax tam toog gi ñu wax tey ndax programme matrice bi duggul ci programme tey moo tax loolu nañ bëgg laaj yi ak ci toog gi ñu waxtaan ci lay gën a yokk ndax am na ci yoo xamante ne ñetti doon liggéey teewul fii teewul fii te am na beneen jotaay bu ñu ko jagleel moo tax bokkuñ koo jiitu sëñ Bakar Abdourahmane dana fi ñëw waxtaan ci lu aju moo tax dañ ko bëggoon a jël ñu wax ci ñiy laaj ba ñu matis ñu bàyyi ko yaakaar naa bu dul suba ni ginnaaw suba ginnaaw suba wala suba yooyu bu soree ko ñu bàyyi ko noonu bañ koo jiitu ndax dañu yàq liggéey bi ñuy doxee nañ bàyyi ko ñëw ba gaaral amaana li ñu laaj sax tool ba dana ca nekk ñoo ngi koy jël bu baax a baax jaamea bi lan la ràññee ko am na kuréel am na ñu ci war waxtaan moo tax nizaam bi système bi dañ ko dañ ko jëlee ci di yéeg moo tax liñ bëggoon jotaay ba ca a yi aju ci formation professionnelle ba yooyu yëpp xëy na ñoom bu ñëwee bu gën a moo tax yooyu dañ ma bëgg ñu ñaan rek ñu bañ a toll ndax ci tolloo daanaka yeneen jotaay yi dafay daal di dafay daal na ci loo xam ne xalaat laa koo gën a dóor ndax mënuñu woon a tàggat xale bi ci ñetti at yu njëkk yi ci kàllaamay arab bi ba mu réglé ko ba nga xam ñu doon ko jàngal xam-xam bi loolu xalaat la waaye ndax ñun wala boog liggéey bi ni ñu ko ràbbee loolu programme nañ ko wala déet loolu Euh, su ko defee ñi génne ci école yi waaw loolu moom xëy na na si def wax ñi génne ci école yi ndax am nañ danañ mën a am possibilité dugg ci jaamiya ba de ndax dana ci mën a dugg wala de léegi laaj yooyu euh, su fekkee ne sëñ Fallou am na jaxalaat ñu ciy wax ñu jox ko ak jëmm jaamiya bi lu koy ràññee loolu mën nañ ko bàyyi moo koy ràññee yeneen jaamiya yi euh, parce que lu bees dina mu ñëwee te te moroomam nekkul fii mu ñàkk mu indi lu amutoon ci ci des waaye loolu nañ bàyyi nañ ci waxtaan ñëw incha allah sëñ Fallou ñu jox la kàddu gi nga réagir ci tomb yi ñu wax. sëñ Cheikh jërëjëf mbokk yi naan loolu aussi bi ñu gis rek loolu am solo la ci topp noseeru liggéey bi ñu war a tëddee kon xam naa am na lu laaj laaj tuuti ci. ndax école spéciale dañuy embradé maîtrise wala déet léegi école spéciale moo ngi tudd tudd maam njàng moom misaal yeeg dégg madrasa misaal yeeg lay dox maam système école formel ci lay dox malis moom daa def fële xëy na lenn moom bunt la ki nekk ci malis bi xëy na bu demee ba bëgg a transféré ma saa nekk waaw bunt boobu ubbeeku na ci ay matuwaay yoo xam ne yuy la waaye léegi dana beru lii def ndax dañoo jàpp ki génn ci daara bi ñaan su bëggee def enseignement islamique wala njàng si taamu islam asir mu nekk magistrat su bëggee nag moom asal yi wala bëggee mu ñaan ci euh, école spéciale boobu bu dee wax ci nii ndax école yi fi nekk vraiment ittihaad ko vraiment tamit dugg ci kuliyaat yi biir nañu sànq wax nañ ni système bi sëñ bi te bu noppee daara yi nekk yëpp dañ ciy tënk loolu benn nañ xanaa ne daal fi nekk ñoom seet liggéey bi liggéey bi ni ko taxawee mën nañ ci daal lañ bàyyi ko bu loolu daal di jëmmi jaaraan ni bindoo mën naa ubbi ubbi boo xam ne keneen bu jóge feneen bu indee diplôme boo xam ne am na moo xam ne la am équivalence ci sax dañ ko tegee su baax dafa mën a accéder en tant que euh, mu tëdd candidat wala teg na maanaam na sart yaa ngi la jaaree tey moom ñu mën koo dugal ci biir ci tënk loolu laa amoon lay wax ci tomb boobu salaamaaleykum. waaw ni ngeen ko seetloo am na ci yoo xamante ne dañ koy bañ a jiitu moo tax duñ koo duñ ci tontu ndax boo ci tontoo dafay allah suba. ci lañ war a waxtaanee lu jëm ci daara alxuraan sëriñ Moussa Diop daal moo koy waxtaanee ginnaaw suba ci li ñuy waxtaanee majlis bi sëriñ Bakar Abdourahmane dana ci ñëw ginnaaw wa ginnaaw waxtaan bi tey toppaat ñu ngi jëm ci valeur yi nga xamante ni wala xëyam yi nga xamante ni moom lañ war a bàyyi waata xel ci nekkin bi ci yoonu ko yor dañuy complexe bi dégg danañ ci waxtaan moo ciy toppaat ñu jël ci bàcc bu aju ci kulliyatu sharia kulliyatul dirasatul islamiyya wala wala arabiyya sëriñ Abdoulaye Lo bi dana ci ñëw yeneen kulliyaat yi jëm ci wàllu technologie ay agroalimentaire rek ay ay unité yeeg yu mel noonu tamit dana ñëw benn professeur bu ñuy wax euh, moo fay moo ci waxtaane kon boo ko gisee dañ koo jëlee ci suuf di yéeg incha allah bu dee njàngam yooyu yëpp dana ci ñëw ñoom ñu jël li nga xamante ne laaj nañ ca euh, laaj yi aju ci loolu moo tax boobu cee euh, dellu si kon daal pour tënk jotaay li doon waxtaane tey mu ngi jëm ci li ñuy tuddee école spéciale ak école yu nuróo école yi fi am ñuy arabo islam ak franco arabe ci anam bu gàtt du lu bees loo xam ne dañ koy tabax mu wuuteeg lool li fi nekkoon waaye dañoo jël li fi nekkoon tuubaat ko soppiwaat bi dolli ci leneen loo xamante ne xëy na desoon na mu lu aju ci ngirum suufiyanke lu aju ci yoonu murid ba noppi tamit gën a bëgg a jëfandikoo bindu sëriñ lépp lu ñu jàng ci diine sëriñ ba bind ca moom lañ ci jiital ci jàng bu laataa ñu koy jëlee feneen loolu mbir mu am solo moo xamante ne baax na ñu ñu ko ci bëgg nañ tamit l'école bi liñ ciy jàng gën a dëppoo suñuy soxla gën a dëppoo suñu réalité li ñuy dund suñuy gëm-gëm suñuy aada suñuy cosaan yu baax loolu it baax na loolu moom wax ci lu dàqonteeg xam-xam ñu xarala yu bees yi yi xam ne ci àdduna bi dox te kenn moomu ko mu njëriñ la ñëpp danañ ko bàyyi wàll xel ci njàng école spéciale bi tamit ñu fàttali ni di ko tax a jóg rek mooy ñu mokkal alxuraan ba noppi cañ bañ seen at ëpp ba tax ñu dox seen digal mën a wóyal seenu njàng ñu jéem leen a gàttalal yoon bi duñ waroon jàng ci juróom-benn at ñu am ko ci ñetti at naroon noonu ba nga xam ne bu ñuy génn at yéen naroon na kii danañ ko dawaatal ci li ci doon kon ci anam bu gàtt daal loolu moo nekkoon jotaay yu tey bi ñuy dellu di rafetlu liggéey bi ak teewaay bi di dellu di sant waa Hizbut Tarqiyyah ci jàppalante ak ñuy jàppalante ak waa daayira Rawdu Rayaahiin ci waxtaan yi ñuy amal di jàppale foofu kàddu yi di leen toog di daje ëllëg ci yàlla leen asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Mbacke jërëjëf tamit sëñ Cheikh Ouna ak sëñ Abdou ak sëñ Fane Ndiaye sant nañu bu baax ndax waxtaan wi tënkoon ci diir boo gàtt dañuy def njiit li nga xam ne moom modérateur bi euh, modération bi ñu ngi ci sant bu baax a baax ndax euh, rafet na tegu ci yoon ñu mën leen suñu borom fay programme bi tamit am solo pour suba incha dañ koy wéyal jàppoo ko moom te lépp loo xam ne suñu waxtaanee rek dañ ko yaatal dañ gis nañ ne tënku programme suñu koy présenté dana am solo lool day day ñi nga xam ne tey woon ci mën a posé ay questions question yi tamit suñu koy laaj nañ ko ne moo ñu waxtaanee ndax amaana kenn ku nekk dana nekk lu bëri bëri loo xam ne soo waaye mu mel ni moom loo xam ne daal rek daal suñu rek. loolu day tax ñu ngi ko kon ñu leen sant bu baax di leen gën di leen jox di daje suba incha allah asalaamaaleykum wa salaatu lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة الذي في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه